ñoom ci seen bopp nee nañu euh, ñu ngi woo population bi te population bi bañ ñoom ñoo ko wax Pape Diop wax na ko monsieur Sonko wax na ko am na ay jeunes rappeurs yi dem sax ba saaga population bi ne ay lâche lañu ñeneen ñi ne way euh, ñun aussi am nañu famille de toutes les façons du ñu dem ñun ñun rek donc euh, mbir mi euh, li ma ci mën a wax mooy réew mi nag kenn moomu ko il Sénégal Sénégal quand même ñenn ñi xam ne du ñu yeewu rek way dañuy wàcc ci mbedd mi ah dégg naa sax ci ñoom mhm. ku wax ak lu mënta am ah. mhm. ak lu mënta am même bu dee day gaañ réew mi ñun suñu bakkan lañ ci teg xam nga responsable waxee noonu parce que quand même réew mi dafa am état mhm. réew mi dafa am état bu doon bu doon bu doon bu doon euh, jàkkaarloo rek xajuñu ci ñoom mais ñun du suñu option mm-hmm. du suñu vision mm-hmm. du suñu démarche politique mm-hmm. maanaam ñun xeex bi ñu xam mooy xeex ci élection bu dee jour euh, bésu vote bi dañuy dinañu mobiliser suñuy électeurs pour ñu dem voter suñu candidat loolu la ñu xam mais ay xuloo ay ñaayu affaire ñun nekkuñu ci parce que aussi aussi uh-huh. foog ne xalaat ne mun nga wàcc ci mbedd mi di détruire bien nit ñi di euh, euh, attaquer nit ñi bu ñu foogee ne loolu mooy yoon bi il se trompe maanaam ñu ngi ñu ngi ci njuumte. ok parce que ñu bëri aussi temps ñu ngi génn que ni ñu bëri tiit nañu par rapport ak élection yi ñu jublu ñu ngi ñu dénoncer ay tension au niveau des de camps. xam nga euh, tension moom euh, veille élection dafa mës a am ci réew mi kii la rek période la rek mais incha allah élection yi dina am te dina am ci jàmm ak salaam sénégalais yi ku ñu wóolu ñu fal la ku ñu wóoluwul ñu bañ la fal. ok parce que aussi ñu ngi gis euh, temps yi yëpp euh, ay dispositifs yi ngeen def ci mbedd bi des gendarmes ay oto gi mais bëri nañ temps yi aussi. Euh, ni ñu équipé gendarmes yi aussi parce que day xaw a ñaaw xel. Ah, tey xel tuuti attention est-ce que yéen de con est-ce que vous n'avez pas confondu. ak jalonnement. du président de la République di def activité day am jalonnement. Ah, parce que souvent aussi même la dernière fois gis nañu gendarme ni ñu. cadrier en quelque ni ni ni ni ñu jege siège u. Euh, mais c'est normal. collectif mais loolu c'est normal. conseil constitutionnel nga bëgg a wax. non non siège C25 collectif des 25 de l'opposition mais c'est normal. lors de leur réunion. mais c'est normal xam nga force de l'ordre yi aussi kenn moomu ko. moo ko mais état bu déggee diw ak diw ne dañuy def violence mais il faut mu jël ay dispositions. wala dañuy bàyyi ba gaaj ñi euh, un petit groupuscule wàcc ci mbedd bi jaxase fii à gauche et à euh, sécurité soog a ñëw non gestion prévisionnelle la maanaam da ngay aar réew mi doo toog ba gaañ yi dugg par exemple un adversaire un ennemi extérieur da doo xaar ba mu dugg ci réew mi soog a jël ay ay gànnaay ay ay mesures mhm. fii aussi comme ñoom nee nañu dañuy wàcc ci mbedd mi dañuy déstabiliser réew mi. Mhm. on verra bien. et et et, et l'État prend très au sérieux ok parce que ñi nga xam ne ils sont capables dégg nga li ma la jël xaalisu compagnie pétrolière di ko politiquer ci réew mi. xam naa la après nañ ci ñëwaat ci débat bi. Ah. mais c'est tout à fait normal. que mhm. état bi jël ses ñi nga xam ne aussi dañu ne insurrection. Mhm. ah maanaam jël ay ngànnaay pour déstabiliser réew mi loolu la ñuy def mais loolu il faut état jël ay disposition pourquoi parce que xam nga yooyu bu amee mhm. du Macky Sall moo ciy perte du le petit peuple du du du ñoom ci seen bopp si dirigeant yi mhm. parce que bu xeex amee doo leen gis. ok donc pour xeex am. aussi que... il faut être deux. parce que on a vu aussi de set temps-ci Mame Mbaye Niang génn nee ni dina recruter ay nervi tout à l'heure aussi maa ngi seetaan benn vidéo ay nervi bon sol ay t-shirt euh, du président Macky Sall à l'effigie du président. yooyu man je n'y crois parce que xam nga gars yi ils sont capables de tout cest lu ñu lu ñu sañ rek amul. sans que yaa ngi doon wax affaire fake news. Mm-hmm. maanaam xibaar bi nga xam ne taxawul fenn. am na bii ma Mbaye moo ko wax ne kii sax dina recruter ay nervi pour Mbaye Niang la xam nga man du ma commenter li nga xam ne dégguma ko. Mhm. te du suma suma suma suma suma suma kàddu. Mhm. man li ma mën a wax violence maanaam fitna mhm. man dama ko. contre waaw dama ko contre waaw dama ko rëbb. je comme ça qu'on dit en mhm. dama ko contre d'où qu'elle vienne nag mu nekk opposition mu nekk pouvoir dama contre violence parce que violence amul benn njëriñ day gaañ ay sénégalais day gaañ ay sénégalais te xam nañu lan mooy violence mhm. boo demee du ma tudd benn réew mais am na ay réew yi nga xam ne tey da ngay gën nañu fetal la da ngay toog rek géej gis nit géej a gis nit fekk dañ ko boobu. ok donc donc il faut faire attention. moo tax état Sénégal du nangu jamais que ay tentative déstabilisation réew mi di am. ça c'est même pas possible.